mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci actualité ñuy wax tey ci ki nga xam ni moom mooy Youssou Ndour di roi du mbalax moom nag ci benn émission boo xam ne invité woon nañ ko ko fële nga xam ni moom mooy télévision Futur Média ci korité bi def na benn révélation de taille ci li nga xam ni moom mooy carrière am moom nag annoncé nañu ni dafay daal di arrêté li nga xam ni moom mooy carrière am pour un moment maanaam dafay daal di arrêté ndey li nga xam ni moom mooy woy bi li ko waral nag moom mi ngi wax ni feebaru wàllu Covid 19 bi nga xam ne jaar na fi affecté bu baax li nga xam ne moom mooy monde culture bi rawatina ah, ah, ñoom ñooy musiciens yi moom wax na ne li nga xam ne moom mooy feebar bi daf ci jàng lu bëri waaye nag dafay tax mu daal di xoolaat li nga xam ne moom mooy liggéeyam xoolaat boppam balaa muy dellu si ci li nga xam ni moom mooy scène musicale bi rassuré na bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fanam wax leen ni moom ma ci diir boobu sax du bàyyi sax a li nga xam ni moom mooy woy waaye daf koy boole ak leneen boole ci tamit di xoolaale li nga xam ni xam moom mooy euh, musique bi ni muy demee ak ni mu war a tëddee euh, bu dellu see loolu nag di ay kàddu yoo xam ne ki nga xam ne moom mooy Youssou Ndour daal di na koy annoncé xam ne moom mooy télévision euh, Futur Média mu nag mu daal di nag bett loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fanam ndax kenn ci ñoom xaaru ko woon liñ leen lañ indi loon tey doon wax ci ki nga xam ne moom mooy Youssou Ndour ci pause bi nga xam ne naan na ko jël ci li nga xam ne moom mooy carrière musicale ma ñu leen di wax na comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar